nuyu leen yéen journalistes yi yi ne dama naw seen liggéey seen taxawaay ci réew mi li waral ndaje bi nag dañ koy tënk rek ci ñetti poñ bu njëkk bi mooy li wa nga xam ne moom la ñu jublu muy élection locale communale et départementale mais aussi li nga xam ne moo gën a tax ñu woote ndaje bi suñu jógee ci poñ bi nga xam ne mooy élection locale yi mooy lancer l'organisation de l'anniversaire de notre partie Alliance pour la République le premier er décembre organisation boobu nag étudiants yi ñoo koy def suñ jógee ci loolu aussi dinañ wax tuuti ci posture opposition sénégalaise bi pour wane seen taxawaay mais aussi sénégalais yi mun a xam ban kanam ak ban opposition la ñu am suñu kanam loolu nag dañuy tàmbale di remercier le président Macky di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam guddeeg bëccëg pour jàppale sénégalais yi pour améliorer aussi seen condition de vie barki démb rek la lancé le centre international de cancérologie au niveau de Diamniadio xam nañ ne octobre bu ñu génn wala chaque année octobre sénégalais yi dañuy mandargal di sensibiliser di taxaw pour la lutte contre le cancer loolu nag président su demee ba jël ci xarañcam ci gis-gisam ci yërmandem ci Sénégalais yi ne day tabax centre internationale de cancérologie yaakaar naa ne war nañ ko cee gërëm mais aussi war nañ ko cee sant ci biir aussi taxawaayam gis nañ ne tey suñ demee ba ne élection locale communale et départementale président Macky Sall dafa am taxawaay bu am solo bu mu ci am parce que bi ñu génnee élection présidentielle 2019 avec une majorité confortable mu ne damay woote dialogue national inviter tous les pans qui composent cette société muy opposition muy pouvoir muy société civile kaay leen toog ñu waxtaan pour gën jëmal gën a dëgëral suñu démocratie ci biir loolu conclusion yi fa génn moo tax tey ñuy wax affaire élection locale ak départementale donc loolu day wone taxawaayu président Macky day wone taxawaayu président Macky en tant que patriote en tant que aussi démocrate et élection locale yooyu ñu jëm nag day baax ñun ñëpp parce président Macky Sall taxawaayam ci biir APR taxawaayam ci biir Benno Bokk Yaakaar ak majorité bi du taxawaayu président de parti mais taxawaayu waajur la fi taxawee waajur nag diggante mag doomam dafa sax ci xol donc day métti pour nga choisir day métti pour nga tànn mais comme mënuñoo tànn ñëpp am na ñu mu tànn ci ñàkk pexem mais ku nekk war naa jàpp ne ku président Macky tànn rek yow la tànn parce que njaboot bi yaatu na kon ñu tànn ak ñu mu tànnut ñëpp nañu laxasoo doon benn ànd le président Macky Sall ànd ak ñi nga xam ne moom la tànn ci communes yeeg département yi pour Benno Bokk Yaakaar mën a gañe élection locale yi ñu jëm parce que nag élection yu particulier la élection yu am enjeu la donc ñun ñëpp war a jóg rawatina nag ndaw ñi rawatina étudiants yi xam ngeen stratégie bi xam ngeen ban doxalin ngeen war a doxale ba wax suñu waajur yi wax ak suñu papa yi ak yaay yeeg mag yeeg mbokk ñi pour ñu gën taxaw jàppale Benno Bokk Yaakaar e yéen a ci gën a am taxawaay bu bu jëmal parce que yéen a nekk ci université yi te xam ngeen li président Macky Sall liggéey ci université yi xam ngeen ni président amélioré seen condition muy côté bourse muy côté pédagogie muy côté faju donc yaakaar naa ne yéen a gën a mën a jekk pour taxaw pour wax ak population bi pour ñu gën a votel président Macky Sall loolu nag su ngeen xoolee université Cheikh Anta Diop de Dakar nu mu mel da ngay jàpp ne ci université européenne nga nekk pourtant c'est en Afrique et c'est au Sénégal loolu nag daa am ñu ko jëmal mun naa cee citer rek directeur du COUD Maguette seen tey autant da nga doon génn ci mbedd mi sa waajur wala ko koo koo tasel nga ne ko université da lay daw mais instant yi week yi da ngeen di gis père de famille yi ak seen doom ñëw di doxante ci biir université bi parce que cadre de vie baa nga fa condition yi ñu nga fa et loolu day fekk si ci président Macky Sall lu mu doon wax mooy promouvoir l'excellence dans l'enseignement supérieur suñ jógee ci poñ boobu damay ne élection locale yi war naa tax sénégalais yi am beneen taxawaay seetluwaat taxawaayu opposition bi parce que ci investiture kese fu ñuy tànni ay candidat kese gis nañ fi ñi daw ak seen liste d'investiture gis nañ ay démission loolu day wone ne Sénégal ñoru leen lenn moo leen ñor mooy seen bopp te ki nga xam ne nag sa bopp moo la ñor yaakaar naa ne pareeguñ pour jël suñu réew mi dénk la ko donc loolu wone na posture opposition bi wone na seen bopp moo leen ñor dara ñoru leen souffrance wala besoin population bi seen yoon nekku ci seen bopp rek mënuñoo jeexal nag te neewuñ leen ne yëgal leen ne mouvement élèves étudiants républicains comme nuñ koy defee chaque année bu nekk ou bien at bu nekk organiser anniversaire u parti bi parce que nag symbole la ci ñun surtout ñun ndaw parti bi bi ko Macky Sall di créer le 1er décembre 2008 trois ans après quatre ans après mu accéder au pouvoir loolu ñun dañ koy téye te dañ koy consolider kenn duñ ko yàqal loolu nag moo tax ñu ne ren aussi dinañ organiser waat anniversaire bi et turbine lay doon pour ñëpp partie bi ñëpp muy cadre muy jeune muy femme muy enseignant saa ñoom ñëpp ñu daje fi gën a dëgëral suñu diggante yi gën a jëmal suñu solidarité bi nga xam ne symbole la ci suñu biir partie pour ñun ñëpp ñu ànd jublu nag ci élection liggéeyu élection locale yi et permettre président mu gagner largement et confortablement jour anniversaire boobu aussi occasion lay doon pour ñu rendre hommage suñu camarade suñu papa suñu waajur bi nga xam ne def ñoo quitté récemment muy Abdourahmane Ndiaye ki nga xam ne moo jiite woon moo yoroon secrétaire administratif parti bi waajur nag boo xam ne dafa amoon taxawaay ci njaboot bi au-delà de soutien bi ak liggéey bi mu doon def ci wetu président def ñu doon ginde daf ñu doon won yoon daf ñu doon xelal daf ñu doon orienté daf ñu doon jàngal kooku nag yaakaar naa ne su wàññee ko ñun ñëpp a ñàkk rawatina nag le président Macky makisal ñu ngi koy jaale waa parti bi yëpp. di nga ko di nga koy jaale aussi njabootam ak ay xaritam donc pour jeexal dama pour la victoire de Benno Bokk Yaakaar le mouvement des élèves étudiants républicains s'engage merci beaucoup